Touba Touba dëkk bu selli bi nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mi ngi ko sanc ci atum 1888 ngir jaamu boroomam bi ko sancee daanaka juróom-ñaari at rek la fi jot a dëkk ndax ci atum 1895 sëriñ bi génn na dëkk bi ngir dem liggéey la ji boroomam ci sabab goo xam ne mi ngi bàyyeekoo ci feeñu goo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ko ko feeñe woon ci lixtikaaf goo xam ne Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mi ngi ko fa doon amal Cheikh Ahmadou Bamba sàkk woon bokk ci waa ahlul badri yonent bi xamal ko ne loolee kat la la koy may lu métti métti la lay doon loo xam ne la ci gën a tuut day faat bakkan sëriñ bi xamal ko ne bakkan bi kat sàkku ko bay xam la ma àttan ak la ma waaye luñ ko mën a teg su ko bakkan bi fekkee jomam dékk ko borom fidwa ak ngorga ak jom ja ci borom jom jommal na ñii ak ñëwe borom fidwa ak ngorga ak jom ja ci borom jom ñii ak ñëwe fitam waa waral tey ñu am fet gu rëy te mooy màggalam gi ndamam laa ngi ci loole di engagement boo xam ne Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul jëloon na ko ci jàkkay Daaru Xuddoos loole di sababu ba mu génnee ci koor gi rek ci la dem sanc Mbàkke Baari Jolof daal di fay nekk ndax dëkk bu sell bi di Touba aaral nañ ko ko ba benn musiba ak benn nattu du ko fekk ci bërëb boobule lañ ko fa booleek ay nooni jamonoom ba mu dem ci yoonu géej gi diirub juróom-ñaari at yu mu fa def bi mu ñibbisee ni mu demee ca Mauritanie ci yeen Jolof ba ni mu ñëwee ci njaareem njaareem googu sax fa lañ dooree li nga xam ne moom moo di màggal gi ndax mi ngi joxe ndigal gi ci vers les années 1921 1922 bis boobu di bisub màggal Touba ndax sëriñ bi moo ne bis bi fu mu del seetee ci àddina nañ ko ciy santale yàlla li dalee ci ginaar ba ci gileem ngir xéewal yi nga xam ne yàlla suñ boroom defal na ko. waaye nag ci jamono Cheikh Mor Fadal Mbacké le deuxième xalif général des Mourides moo ko woote ci atum 1947 mboolem taalibe yi di bàyyi ko fu ne di ñëw ci bërëbu sell bi di Touba di sant la yàlla suñu borom Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul bisub màggal Touba bésub sant bisub bernde bisub jaamu yàlla saa yu weeru teroo ñu gën a yokkaat njàngu alxuraan mi nga xam ne mi ngi am saa su ne ci dëkk bi njàngu xasida yi di jib ci dëkk bi fépp jolli ci kuréel ci ay rajas ci durus yoo xam ne ñu koy amal ci biir kër yi ci marché yi ci place yi ci fépp foo xamante ni rek nit nekk na fa mi ngi dund bu baax a baax wàccaayu màggal Tuuba loole bu weeru tàbbee rek muy premier safar mboolem dëkk bi di riir ñu xam ne jub nañ bis bi nga xam ne la Cheikh moo Fadel Mbacke waxoon ne bu dul woon bis bi la ñuy si ci Cheikhul Khadim buñ ñëwee di fa fekk dara moom moo tax ay million ngi million ngi nit di bàyyeekoo fu ne ci biir réew mi ci bitim réew ngir ñëw teew ci bu sell bii di Touba ngir teewe bisub màggal Touba. taalibe yi fonk bu baax a baax bés bi di ci def luñ mën li ci def luñ mënut kon bisub cant la bisub jaamu yàlla la te cant yàlla. war na mboolem jullit kon bis bi du bisu murid rek waaye bisu mbooleem jullit la ndax sant yàlla lañ ciy def sant la Serigne Touba yàlla suñu borom ci li nga xam ne moom la ko defal. kon mbokk yi ñu fas yéene ànd ak yéen ci màggal Touba lépp loo xamante ni day bàyyeekoo ci dëkk bu sell bi di Touba ngir jox ko mbokki taalibe yi fépp fu ñu mën ci nekk ci biir réew mi ci bitim réew di ñaanalaat Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides mu gën fee yàgg. gën a wér yàgg ànd ak taalibe yi jëmale ca kaw a kaw liggéeyu Serigne tubaab bi ci ni nga xam ne noonu koy waxee saa su ne bu liggéey bi laal suuf benn yoon wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.